bokki jullit yi taalibey murit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi ak bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal di ñaan borom bi subhaanahu wa mu eggale ci ci jàmm te ñu tase ceeg ngërëmul xaadim rasul waxtaan wi nag ci tënk li ko yëkkati tax ñu daje fii tey xam ngeen ne jamono yii yépp coow yi bari na ak téléphone yi ci mbooleem fu murit yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir di leerlu mbirum kii nga xam ne moo nekkoon soxna sëriñ Béthio Thioune di ayda Diallo mbooleem fu taalibe yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi jokkook sëriñ si ci biir yoon wi di jokkook seen mbokki taalibe ba loolu àggoon na ci ñu ciy def ay jataay ak i waxtaan ngir saytu mbir moomu li ci ëpp nag man lañu ko sarse woon ma di ci dox ànd ko ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir ba tey jii ci bëccëg ci lañu tëj dossier boobu man cee def point de presse pour leeral taxawaay boobu ndax gis nañ ni mu itteele taalibe yi ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn ku nekk di laaj soxna soosu lan mooy position ci yoonu murit ku ne xam na ne naga ni si daaw yëngu-yëngoom amoon na ci dëkk bi te fii mu baase ci ngaabu di kër sëriñ Béthio Thioune gi mu fi amoon ku nekk xam na ne Ngaabu ci banlieue Touba la bokk manees naa wax ne sax ab quartier la ci Touba ndax 1917 la ko Serigne Touba sancoon def ko daaray alquran yabal fi lenn ci njabootam te daf daan wax bi mu nekkee njaareem ne Ngaabu dey sama pekk la lépp lu fa nekk seytaane du ci man dara pekk nag ku ko xamul ci xale yi mooy mag ñi daañu daanañu am seen kër ubbi fa benn pantre boo xam ne lañu ñu gën a fonk bëgg mu ñoŋ fale ñu koy denc moo taxoon mu daan wax ni ngaabu sama pekk la lépp lu fa nekk seytaane du ci man dara pekk boobu nag loolu dañu koy bàyyi xel saa su nekk ci biir yoonu morit ba kii di sëriñ saalihu yal na yàlla yokk yërmandeem waxoon na ne ngaabu bu ma sañoon bis bu set ma dem fa te bu ñépp xamoon la ma fa xam daañu ko gën a fonk ba tax na ñaari vent yi ñu gis muy godoron boobu ko wër fonk gu sëriñ saaliwu fonkoon ngaa bu moo taxoon mu def ko fa doomi sëriñ Touba yépp fonk ko jox ko cër ñenn ñi dëkk fa ba nun ñii di wax ak yéen suñu way jur fa la àdduna ci ndigalul sëriñ Touba kon dëkk la boo xam ne mook Touba ñoo yam benn atte lu ñu sëñu la def Touba kenn du ko fa def ci loolu nag ñu am tuuti lu ñu bëgg a leeral mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu xam ne sëriñ si ci yoon wi di kilifa yoon wi tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Mountakha déclaration daaw ñëpp dégg nañ ko te boobaak léegi kenn déggul mu wax ne deltu na ci ginnaaw gisuñu mu jëf lu waroog loola kon waxi daawam mooy waxi renam te képp koo xam ne sëriñ Béthio cuun jaboote na la ku ne xam ne ne sëriñ Béthio cër bi mu amoon sëriñ Saalihu moo ko ko defaloon te samp sëriñ saalihu képp ku bokk ci xaadimu rasool boo ñëwee da nga koy gën a dëgëral waaye doo ca wàññi dara sampub sëriñ saalihu fu ngeen fekk njabootu sëriñ Touba la leen ca war mooy suuxat ak màndal ba ba mu baña lax bañ a gooy kon bu ñu sañoon njaboot googu nekk benn bi ñu nekk ak Cheikh Béthio ba mu làqu li gënaloon kilifa yi mooy njaboot gi góor ak jigéen ñépp àndandoo nekk benn dox ci doxinu yoon wi doxinu yoon wi nag mooy ku mag nañu la jiital ak kër goo mën a nekk ci kaw it nga nekk góor ñu jiital la ca kër googa loola moo tàmbali jamonoy Cheikh Mouhamadoul Moustapha ginnaaw bu Xaadim Rasul làqoo ba agsi fii tey ci seex Muhammadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér njabootu sëriñ Béthio Thioune nag ku ne xam na ne sëriñ Saalihu moo taxawaloon seex beeco jox ko cér bi mu ko jox ba mbooloo mi ànd ak moom kon loolu amul kenn ku cay wàññi dara ci njabootu sëriñ tubaa léegi nag foofu dañuy xalaat ne ginnaaw bu xalif général de Mouride jàlle sëriñ seex moom sëriñ saalihu mooy ki fi nekkal sëriñ saalihu ñu koy ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te may ko wér muy koo xam ne ñépp xam nañ njubam ñépp xam nañ ak sellam ñépp xam nañ ak bëggam sëriñ Touba ak yoon wi nu mu ko ñore ba tax na baatam ak waxam mook jëfam ñooy dëppoo moom nag joxlante nañ ay kàddu ci bëccëg ci teewaayu sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir mu leeral ne bi ma ko waxee ne ko taalibey murit yi day dañuy laaj mbirum soxna soosu ak ci màggalu tuubaa gi ak yëngu-yëngu yi mu daan def ak lan moo ci sa gis-gis mu wax ne moom amul benn gis-gis bu dul bu gis-gisu sëriñ Muhammadul Muntaxaa li sëriñ Muhammadul Muntaxaa jisoon wax ko ko digal ko ko ne ko kii nga xam ne mooy sëriñ saalihu cuun mooy góor moom na jiitu jigéen ñi topp ci ak ndaw ñeeg gone yi ndax sëriñ saalihu cuun mooy doomi sëñ beece ju mag nekk góor kon kooku moo war a jiite mbooloo ma di sosi nag ci njabootuk sëriñ Touba gi te kii seen jëwriñ mooy sëriñ seex moom sëriñ saalihu ndax moo fi nekkal sëriñ saalihu te sëriñ Mouhamadul Muntaxa itam loola la mën a séq ak ñoom léegi nag bi nga xamee ne soxna si sëriñ bi digaloon na ko loolu moom Aida jàlloo leeraloon ko ne ko nanga topp ci ginnaaw Saalihu Cuun mbooloo mi yépp nekk benn ñuy ànd di siyaare si seen jëwriñ moom li ñu ma leeral mooy ndigal yooyu ñu ko jox yépp bu jógee ci sëriñ mun Muntaxa jóge ci sëriñ Seexum sëñ Saalihu sëriñ Saalihu Cuun moom ndigal lañ ko jox jëfe na ko te nangu na ko nangu naa wee ndigal nangu naa sosi ci kër gi waaye kii di Aïda jàlloo ndigal li nga xam ne moom la ko joxoon daaw ci ndigalul sëriñ Mouhamadoul Mountakha ndigal loole ba fii ñu toll tey yëguñ lum ca jëfe sëriñ seexum sëriñ saalihu itam la mu ko digaloon yëgul lenn lum ca jëfe kon nag dafay jaadu ñu leeral àdduna euh, bi yépp leeral fépp fu taaliba murid nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu xam lan mooy position kilifa diine yi jiite yoon wi ngang ko loola mooy ki ñu mën a séqal yoon wi mën a séq ak moom digal ak tere mooy ki nangoo doon ab taalibe nangoo jëfandikoo digle ak tere ñu di leen xamal ne nag kon ñoom ñaar ñoo séq kër sëñ Béthio te ndigal li mooy na sëriñ Saalihu Thioune jiitu njaboot gi topp ci ñu ànd ñëw liggéeyal sëriñ Touba loolu nag kon ñu xamal leen ne ndigal li ñu joxoon Aïda Diallo moom jëfewu ko kon sëriñ Saalihu Cuun moom lañu yëg ne lañ ko digaloon mi ngi ci biir ndigal loolu ndigal nag saa yu génne ci am murit dara desetu ci ndax ko bokk ci yoon wi yaara la ci bàyyi ñu digal la nga def ñu teral la nga bàyyi kon nag képp koo xam ne dangaa xemmeem alalam ak koo mën a doon muy nag ya muy dajale wala xaalis ba mu wóor la ne li la sëriñ Touba cërale ci boppam xeeb nga ko wala nga xiif-xiif buy tax nga dem di ko fa sàkku na la wóor ne alal joo xam ne jii borom lu mu bari bari bari wéewul ndigalul sëriñ Touba bu nekkee ci biir yoonu murit na leen wóor ne alal joojee sëriñ Touba seexlu na ko képp koo xam ne nag xeeb nga li la sëriñ bi defal ba nga di ko yóotu wala bu ñu la ko yëtee nga làq ci sa wanag na la wóor ne foofee sëriñ Touba jaar waroo moom ak jublu loolu na leer ci kanam ñépp kon nag lii bokk na ci li ñu bëggoon a tënk ñaareelu point bi mooy kër ga sëriñ Béthio Thioune am ngaabu kër googa mënuñu ne màggalu Touba ay gan du fa dal ndax kër yépp ba ci mbedd yi ay gan dañu fay dal waaye nañu xam ne tere nañ ko lépp lu xeetu ci yëngu ci ngaabu boobu ndax mook Touba ñoo yam àtte ak li wër kër ga wala ñu di fa baas wala ñu di fa def yenn activités yoo xam ne jotoon nañ ko fa yëngal daaw ren ji interdit nañ leen ko ñu bañ ko faa def ak bépp yëngu-yëngu ak benn manifestation bu ñu fa war a def tere nañ leen ko ci ndigalul kilifa yépp te it benn baas wala buy rassembler mbooloo tere nañ leen ko fu ku nekk ci biir këram nag loolu dañ koy jàppe ne gan gu doxoon ba yam ca kër ga war faa dugg seelu fa ab taw wala ngelaw loolu lañ koy jàppe màggal gi soxlawuñ ci lu dul jàng alquran ak xasiida xasiiday xaadimu rasul yi nga xam ne dara génn ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu loolu la sëriñ bi dégle kon ñu gàttal kàddu yi di leen xamal ne ñi ngi ñaanal bokk yi am yéene ñëw yépp suñ borom jàpp ndalal leen ko ñi ñu fiy fekk it ñu am lu ñu leen teertoo ganaleen leen ko te lépp luñu ci jéego wala ñu yëngu ko ci sëriñ Touba nangu ko ñi ngi leen di baal wax ko